خير المغضوب عليهم ولا الدالين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر أنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخصنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله اشف بها أمري لا إله إلا الله وادخل بها خبري لا إله إلا الله وادخل بها ميساني لا إله إلا الله أرضي بها ربي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله رجال الخيبة ورجال الشهادة أهل الكسوفة وأهل التوبة لا إله إلا الله حليم الحكيم لا إله إلا الله سبحان الله الكريم لا إله إلا الله رب الحرس العظيم اللهم إني أشهدك موجبات الرحمة وخشائن مغفرتك والخنيمة من كل بر وسلامة من كل سنب اللهم لا تدع لنا سنبا إلا خفرت لنا ولا هما إلا فرجت لنا ولا حاجة وهي لك ردي إلى خديتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا سريع الحساب يا من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فائشة سترا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد أنفاس المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد أسهار الموجودات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد حروف لوه ودهوات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد البداية والنهاية من المهدوم والموجود إلى الأبد الأبد وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله yi teew ñu soppe yeeg wala rey خريب yi yëpp ñu ngi leen di mi nga xam ni def ak dindi ci loxom la ne yàlla na yàlla defaral nu sunu àdduna ak sunu alaxira dindi lépp luy ñaawteef ci nun wala gàllankoor fii ci sunu dunduk àdduna bala noo dem fi moom te ñaan yàlla may nu kàttan ku nu ko jaamu ndax lépp ci loxom la nekk ku ne ni bëgg nga mel ni rek noonu ngay mel yàlla nañ ko yàlla defal ñi fi baax ñépp du seen ngóora donte dañ ko bëgg ndimbalu yàlla ci ne yàlla nañu boole ci gaa yooyee mooy wax ni walaw saa rabbuka la aamana man fi l ardi kulluhum jami kenn waxalu ko su ma neexee kenn du dëng kenn du jubadi ñépp a may gëm te walaay mën na ko mm-hmm. comme nag sañ na ko lu ñaan yàlla suñu borom yàlla nu boole ci amiloo sariyaat ak yooyu wala si ne amono waa amiloo sariyaat di jéggulu ñëpp di jéggal ñëpp di encouragé waat ñëpp itam li des bariwut daanaka boo ko seetee fukk yu mujj yi nga xam ni moo gën ci koor gi ci lañ nekk toujours damay wax ni moom mooy wax ni walal axiratu xayrun wa abqa walal axiratu xayrun lakka min al ula yàlla koy wax li mujj moo gën moo ko wax de te li mujj lay contrôler moom lay fay kon du fay départ arrivé la yàlla lay fay nañ fexe ba fekk arrivé bi na ñëpp takkuwaat ci diis suur yu mujj yi nga xam ne ci la iblis gën a mere bi ñuy départ dana ñi lañuy fo ñëw ba ci digg ba mu ne xaaral ma jóg nag waaye fi mu ne dana ñi su ma waxul ci ñoom ñu egg fi ñu toll nii ñun ñëpp nañ laxasuwaat fas yéene woor woor gi ngir jëm yàlla naafile naafile yi ngir jëm yàlla tey joxe ndogu yi ngir jëmm yàlla tey jégalu bàkkaar yi ngir jëmul yàlla tey jégale bàkkaar yi ngir jëm yàlla tey ñaan yiw yi ngir jëm yàlla ba keroog ñu arrivé su ko defee rek kon imaam jël kàddu laajalal sa bopp ba li mu wax ni moom ko bëgg a xoolal it. waaw ah, kay waaw ah, kay waaw kay loolu laa kay parce que sang moom du ñaari façon du ñaari façon kuy gis reegal ku wasin ku am rapport ku gént ndox génn ci moom. benn rekk li tax a mooy ndox mu génn beneen bi jees mooy ku doon jaxasoo te la nga yéene woon ca jaxasoo ba amoo ko moom la téere bi wax ni maqi bu xasafati fil farj dina xorom lool sax loolu boo ko dee dégg maanaam ku mel ni asmi mi rek doon sàccee fi jàmbur ci saal bi walla ci miir bi ci koñ bi bi nga demee ba tàmbuli eh, ba bopp kuur gi tàmbulee dugg ci biir benn waaye nit tay ab sort nga ni bërit sëy ni eggut waaye bopp la nga yor tàbbi na ca biir pay ma xam nga eggoo da ngay sangu ci génne ndox sa yéene eggut da ngay sangu ci set donte ñi ñuy tudde pédophilie la xalé bu ndaw wax ni yow li nga bëgg ci mo mënu ko nga nek ci jëm coo ba mu yuuxu nga daw waaye wax yow nga ni sa bop kanam dugg na ci mom bo moy bi ci gëna mom la téré bi ni bu yor ci karamu jigen nga xam ne eggaloo sa yéene lu yuuxu la nga nga fay nga wéy gone yooyu di fo mbaa amet naar muñ bëgg a nax ne ko jox ma junni bi nga yor mu nekk fa naa la dibbali rek tuuti rek laay def lu tuuti loolee ba jotal laal te génn ci ñàkk nga junni te nga di nga sangu ci mooy maxi ba xasafate fi ña na des nag dañoo egg dëkk ba ndox ndox ndox génn na ci ñoom képp ndox génn ci yow da ngay sangu ku deret génn ci yow da ngay sangu dereti wasin dereti règle day tax sangu gént ndox génn ci yow jaxasoo gu wér day tax a sangu ak kee nga xam yéen mi eggut waaye am na lu tàbbi ci biir na sangu ji te bu noppee ñu dem summi ginnaawam ñu dóor ko dóor yoon moom da sàcc amul lam bëgg joxe na xaalisam dees na ko duma da doon kon loolu moo fi nekk da wax lu ñu dégg acca nga wax ma dégg bala nga ñëw dawut de da suppi ko tëj te dem sangu ci moom loolu lañ ko sant daa ñëw ci sàppe si bi bàyyi seex na allahu akbar allahu akbar moo xam ne sanguwut bu mu fi nekk di kàbbar na dem ci kër ga wutu sar la te sangu ci dawul julli ji loolu lañ ko sant maanaam lim bëgg wax mooy yéene yi bëgg a ànd ak mbooloo mi la bëgg a wax tuyaa bay ànd ak mbooloo loolu lay doon fii ne bu dee yow képp la tamsiir nga bëgg a julli bi nga nee ba war a toll ci bëgg a kàbbar nga ni nii sa tubay fekke taas boo xam ne xam nga ni lii sobe la te xamoo kañ la la tax borom téere bi nee na da ngay fat da ngay seet nelaw ya nga mujj nelaw nga ne man bi ma jullee soo ba noppi ci yoor yoor laa nelaw diggante bi sax julli naa fi tisbaar benn julli naa fi takkusaan te lii moom man la dañ wax nga dem sangu ji te baamu ñaari julli yooya kon amana nelaw yoy nga nelaw ci la affaire bi topé lol lañ ko wax hmm parce que gut dala dem bu dee bay taxawal mais waaw da nga am sobe bokku ci lang dañuy way wayaase nga ñew ba ci gisé bi fini do dóore tampoy alam gisoo sa passeport nooy def ah doo jàll laa laa yam masoo ilal mu taxaroon amoo passeport kenn doo tamponeel wàññeekul dem jëli passeport bi dégg ko waaw loolu moo lay xamal ni question bii booy ba jullit yi jàng diine Mohamed as soxnaa nga ca kaaba ngay wër benn paa nga ca jàkka ja di rukkoo kenn ngay gàddub kaamilam ñu tas ko mu yorub jukkeem amaan def na ko téeméeraat te mënta sangu set dara baaxu ci lim paase lépp fero sangu setee tax a bokk ci wootee suñu borom yi danga koy man bul japp ni fi ni keñof keeñoo profond yor comme sama abay bu rafet bi tek sa kolug makal yu ken xamut na alaaji fekk boo ko doonoo ko alaaji aaji nga don waaw sangu set déggoo ñu ne farata moy farata ci nit mo gëna far saabu ak lo naw lo bari bari profond bari bari saabu ta mo sangu set bokku nañ ni ñi set bu len ko caaxaane pourquoi ça nu yombalal ko ki tuub tay tay tay tay te ta sang noonu ko yéenal ta daanu ci dex gi mu yéene ci sang set dug ci dex gi suñu borom daf ko koy nangul parce que mënagu ko daanu gam daanu ci dex gi dañ koy nangul sangaayul set ci ba waaye dañ ko ne bu ko doyloo mayandi nañ la ko waye man nga jangi ko yéen kat permis ñaat yoon lañu ndax taxul ñu tere la oto bi dañ leen abtu nga ñëwaat dàq la ñëwaat dàq keneen ngay jàll mooy mënoo ko jàngi ko ba ñëw ñu doog laa jox permis bi nga dawal sangaay lu set mboola foo koy wax waaye sangaayu farata la tudd moom moomu nag benn la ci ciy dund benn la ci néew bee ni ñu sange kuy dund lañu sange kuy dee waaw ab néew sax bu faatoo mos ngeen ko dégg néew bu faatu foo gis amet néew bu faatu <laughs> moo tax ma bëgg a seet ba xam da ngaa mos gis néew bu faatoom lépp ma xam ne yow képp yaa ko gis ci àdduna boo nee waaw rek menum yow yaa ko gis <laughs> waaw bu nee waaw ma xam ne gis na lu kenn gisul dama doon set niveau bi rek ok waye kon waji waji dum niñ ni koy sangé ko faatu ko non lañ koy sangé pour ngeen ngeen mokal ko kon sangaayu farata ak njàpp moy yi tax ab julit sañ a dugg ci jakka ji moy tax mu sañ tawaf moy tax mu sañ lal kamil bi ak yépp yu aju ci lo set set jappo boko, hmm loo set set sa sangoo bokkoo loo julli julli te jàngoo faatiha it bokkoo faatiha yooyu nga doon wax noonu fi ne mokkalal kaamil bi rek tarik ba mu jeex te faatiha ñëwut amoo julli jago wax boo xasee tari faatiha loo ci am nga julli téeméeri saar ak fukki saar ak ñett yi jiitu boo ko tari woon ba pare te amoo faatiha te jox nga faatiha julli woo te bo xose jang faatiye ni khul wallahu ahad lo la cees demal nga sujud julli gi baxna na faatiye jeex isa ja anasrullah dak yow kep ak sa julli nak amo sens yow ba top ci yow ba ken gagantina la jëlul gees du guus jëlul gees droite dóor rek ndigali ta dem hein waye fi ne bu don faatee ngay jang ci julli ci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 bu dee ci laxdar yi fukk ak ñeent la fukk ak juróom laa la wax bu dee ñee fukk ak ñeent la ci ñii jàpp leen ko yi yiñ ciy wax ci farata yi ñett kepp la fukk ak juróom ñett moo ci moom lañ ciy wax yi ci maanaam yi ci ay feele yooy def dama ko def ab laaj dama wax ko rek mo gëna a yomb ñett la ñetti ala boko jalle yi nga wara wax ci jultam doon farata jall nga allahu akbar alhamdulillah assalamu alaykum ñetti a am deb ala ko kabar armal alhamdulillah mo jangi fatih assalamu alaykum ñetti wax li ci si fukk ak ñaar yi ay jëf la rukkoo siggi rukkoo sujjóot siggi sujjóot jataayu taay yooyu ñu may kon ñetti maanaam fukk ak juróom na ñetti wax a ci nekk ñetti wax yooyu day wax ne ñaar yi boo ci boo ci jiitee ilimaan bul xaar pour wax yooyu nga xam ne moo da ci farata ci julli gi ci benn ci ilimaan bul xaar ku la fay doo fay ko naafile gi doon def nii xam gudd na lool nga tàmmule ko fan ko tàmmule fan ko jeexale boo jiitoo iliman ñàkk waaw danga ñëw ci julli gi xaw ma dangaa yàkkamtee doxi sa soxla wala dangaa yàkkamtee nelaw yi wala taxawaay bere seeni bàyyi cheikh di di di xaamal imam ba mu ne allah akbar allah akbar noppeegul rek yow nga ne allah akbar ba ba noppi eleman doog ala bar nga ni waxon na jitu ko ca jass doyna boko boo ko njëkkee kaabar baxu eleman day tay day taaya tahiyatullah sakiyatullah tayyibat salawat salaam salam yohana wa rahmatullah ah julli gi daa yàgg salaamaaleykum boog man tay eleman defugo ñak nga bokku ko doo ko jëkk a te doo ko jëkk a da nga xam ci bir julli dedet safar bu départagul nga ne ko ek na Dakar fo jaar eggagul Dakar nga wacc ci yoon wi foy ko jëndal sëri ca koko jox da jar xam ci biir yëf bu la yalla dimbulé nga am nak manam mamo bu toni ni mi mom iliman ju ko wax dula may fo waxe sami Allahu liman hamida xam naa xër gi rek ndeysaan moom booy sikki bala ngaa wax rek wax la moom toog la xaar ba noppi yaay seet noo koy arrangé ba dugal ko ci xam naa yéen yi yéen a koy monté xam naa am na ñu mel noonu xaw ma Pape Dieng la ko defam déet yenn saa yi nga ne allah jógal ko rek muy waxu da ngay may tuuti imam kàddoom daanu nga jóg a yëkkati sa kàddu ba ci asalaamaaleykum ji mbaal imaam ba mu egg ci miim nga nga doon wax waaw loolu da ci dañ ko doon leeral rek waaye mu ngi ko sangu bi pour maa ngi ci gën a préciser ci ab jullit na ko jàng sëñ Saliou loo réy réy ab xaftaan te mënoo ko bokkoo njàpp yàllaa ko diglee isaa xumtum ila salaati faxsiloo wujuukum wa ko ba aaya ba jeex soo mënta jàpp julli gi baaxut soo mënta sangu baaxut kon maa ngi wax nii réew meeg bitim réew ñi ñu dégg nañ ko jàng booy sangu sëñ xaalis bi damay benn image ngeen def ko ci télé bi sëñ xaalis sangul ko raxasul gaaw te yéene waaw jógal taxaw rek mu ngi raxasu nii fi mu ne daa fas yéene sangu sangaayul farata raxasu na bu dee sewo la bu dee sas la noonu ngay def di sotti waaw dégg nga ko bu dee sewo la da as dégg nga bu dee sewo la day as asal mbaa satala asaatal asaatal asaatal léegi bu dee bu dee da lu ñu ab satala la mbaab siwo la su doon sas nag du def noonu day day sutte nee rek waaw léegi xool bi xarit jumbu bi ba ci wóom yi waaw ba ci ginnaaw waaw loolu mooy xobbiku waaw léegi nag fii dañuy may ma fas yéenee sangu set yow miy sangu nag da bëgg boo sangoo ba noppi julliwaale ji ci doo jàppiwaat kon ñaari yéene fii ne yéene na yéene sangu ba noppi sëñ xaarim nag daa bëgg bu jógee fii teggee fi ndax cangaayu jumaa lay def dem ca jumaa ja waaw ba ci wóom yi kanam ak ginnaaw waaw kay dugg na sangaayu set jàppagut de bëggut a jàppaat yéene waatal ma fa yéene jàppaale ngir julli ci tisbari aju ci aca jàppal benn foo war a raxas ñet ci ñap ben nga koy def ñap ben ben def na xam na njàpp am nga leen di jàppal benn yoon fiiru benn ah. waaw waaw yeah. Mhm. Mhm. waaw waaw bu dee sas la da ngay sotti rek bu dee sat la bâche nga waaw waaw def ko bële mhm. waaw waaw léegi nag foofu am na ñaari xilaaf am na ñoo xam ni dañ leen di kaay nga eggale njàpp bi waaw tànku ndeyjoor bi ba ci eggale ko ba foofu ba fi njàpp war ba fi njàpp waaw ba fi njàpp war a yem rek defal bële njàpp ma jeex na cangaay li nag jeexagul kon de ci cangaay li nag xaaj jëmu ca mhm. waaw ba ci woom bi encore ndax wet gi nga jël ba ci wóom demal wet gële waaw ba ca wóom ba léegi na xam nga fa agsi nga foofu léegi nag nga ñu ay yel ndax bi ngay japp fi nga yemoon eggale li yelum ndeyjoor wa kay eggale yeelub càmmoñ ndagal sa ginaaw ragal sa bir ragal sa dënn yow mi réere sangu yëral yow mi mukallaf kàllaf yëral way wi tagul nara melni bayima da nga yokk farlu war na ko kuy xam luma war ma won la gisal nalu ko sëñ ndaysan sëñ afi ñang hmm? ok eh, ba ba tarif bu neex la ko def pour pour baña baña baña jël temps légui sangaayu set a ngi nii original bi ki ko mënul nak mom lañ naan yéeneen lé def ko tak jangi ko wat jangi sangu waye mënu dëkk ci daaw jéeg rek comme sama sëriñ bob mala bolé non ko oh, mo kala fat yam dit eh, waaw bu bu rikk waay bu ko tàyyi yàlla moom na ngeen ko def gis nga Seydina Mohamed yàllaa ngi nattoo ñenn nit ngetu yaram hmm? mu wes ales xaw ma nu ñu ko waxee noonu la xaw ma waaw maanaam yoo xam ne seen yaram day xeeñ fi ñu toll bu ñaqee dana dal lir ci kere bamu mu juddoo tarxas ba setut manam ñi ko doon teew li bi ñu ni ñu war a lir bi ñu bañ ko raxasi bayé ko noonu ci biram ba semaine bi mat be deru kaw wi dëgër mu yobale ngat gogou dana dal nit ba mu dugg ci neegu seyum ndaw si muy xey mu tëddee dana dal goor muy xey xam dafa ko xam fu mu toll seen yaram day xey bu ñaké ñàkk sangu set dana ko def sobe bokkut ak gémmiñ guy xeeñ de yaram muy xeeñ la wax day dal jeeg ci biir këram te lima wax ni ñi ñaan kat yi mom tusu ñu jàmbat jambat leen ko ñu naan ndoxum sitee la japp nangam la japp sobe so muuraale magale ko la nako nday baye xel te laxas liri buñ tay sangu set ñoom gis nga momet nampal dom jo xam yow mi yaay bi koy nampal da nga am sobe day tax sa yu defé examen ñu dàq xel mi du musa neex da nga nampal sa dom ci sobe lire bo beugé xel mi neex sa yo ko né basin mi wara mu gaaw soné nekkee abc mu gaaw mokal bala ngay nampatorom même bo mën ta set mëno japp raxasal wén wi bu dee nga am rapport waye japp ni numa ñëw mëna ko nampalé sama doom day tax loko bindal du mokk am am nax naxa lay doon loo ko mu faté ko jang faté ko du mos passé mukk ay notam am ko nàmp sore su bari ya. canday jala alxabisuna li Al alxuraan ko wax Way wa tay bun li tay bat. yaay ju tey Bay bu tey la ci juddoo leppay bax. Way nday ju tak sobe ba bare di nampal dom. xol mu nëx rek lay kon wolof neena. weñ gi mu ngi baña ca mbanja ma Waxon na li fi barke ni xali bu len len mere de sëñ Cheikh Diatta waxoon na ko nee nañ seen parents yi liñ nekkee tayuñu ko am na système bu bon benn femme laaj na ma ko ci benn réew dafay ànd ak borom këram doom ji jooy fopp benn ba jox ko yaa imaama la su tët tët tët xanaa loolu mooy bu sëllu yooyu bu giir deme ko neen sama ba ba ba kumbaango comme tout tànk bi tout tànk la xamul li xew moo tee yow bàyyi nga nga am maturité muñ xaar am amee naar doo xaar damaa fekk ci wayaas daal dañ ànd comme dañoo dama xas naa dugg ci géew ba pare ba mu mënatu amee <laughs> naar laa ilaaha illallaah mos nga fi njaay sa njaay nekkoon nga xam <laughs> yow pare nga yow juddu nga màgg nga ma noppi moom mi bu ko yàqal adduna léer bii di ñëw hmm? yàlla xam na ko soo gisee yenn doom yi fokk yàlla may de nuy gaaw ci alxuraan mayu yàlla de mais préparation bàyyi ngi ci bàyyi day préparé njaboot waaye nu ma ko juree baax na moo tax di jur ko ne am na parent yoo xam ne Mohamed bi ñuy pare pare tëdd seen néeg la ñuy waajal ki ñu ki ñu war a jur bi ñu bëggee tëdd lañu ñuy waajal ki ñu war a jur yàlla xam na ko ba ba ma femme buy ñëw dafa dafay dafay set ba pare sell ba pare dafay yiw waaye papa buy ñëw noonu lay mel mos bi lay mi si tànn ji waaw wax ko sa néeg doo ko tëj si bun daa wàññi dara wala da ngaa génn gaam ba danga koo fàtte loo yàkkamte ami kon tëjal bunt bi rek nga nga fi nekk <laughs> bu yeexee sax nga bes ko déedéet may ami kon la jàmm mu tëj bunt bi daan waa kay nee na muslu seytaane te delloo si bunt même boo tëdd te kenn booy tëdd yow guddi muslu seytaane te yëgu sa bunt nee na boo demee ba war a nekk ak moom jàngaloon de allahuma jannib naa seytaane wa janni bi seytaane maa rasaxtana boo mënul lépp loolu sax baax na ñaari baat yi rek allahuma jannib naa seytaane wa janni bi seytaane maa rasaxtana déggoo arab ne la yàlla maa ngi ñaan nga musal ma ci seytaane man ak sama soxna si te musal nu ci lii ñu bëgg a def bu mu ko yàq ñaanal yàlla loolu dégg na wolof kamana jàll nag ما جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا اللهم اجعل لنا من هاشه ولدا صالحا واجهله تقيا نقيا ليس في خلقه سيادة ولا نقصان واجعل هاخبته وهاخبتنا إلى الخير آمين يا رب العالمين باب لا di summi sa tubéy nag jàmm rek bis day fab ay dàllam abal leen booy ba ngeen xotti néeg bi waaye boo ko deful day yoon la grand sama copain nga ah, moom iblis waaw ah, sama copain nga ndaw sama copine nga loolu da lay wax boo toogee ci bopp lal bi mu toog ci bopp lal bi booy summiku muy summiku acca nu liggéey mu ne jàppal fii ba jàpp fii yaag iblis yaag iblis yaag iblis yaag iblis ba nga egg ginnaaw raay bu dom jo juddoo xam nga ko xam nga ko don père bu xar yow bu war ci yaa gat bop ya ya mais ko kan moko ko tek parce que préparer woko pour mu bax noko jure baxna dego ñepp dañuy wax ni yalla ma ngi ñaan nga musal ma ci saytaane jannib naa saytaane wa janni bi saytaane maa rasaxtana génneel saytaane suñu néeg bii bàyyi ma ak soxla ci ndax noonu bëgg préparer produire dom gui defar l'islam dom ju mokal alcorane dom gui yiw dom ju taxawal l'islam yalla ne la dama la koy may yow da nga ci génn yalla yalla génn ci bala yaag mom yoyu ñi def ñun am nañu ay mus fi sun kër gis nga bés bu ci jubloo kenn du fi dégg bo génnee fi kël bu yi mom mën ci jappé bu noppé sax duñ fa jox ñepp dañ fay fekk mbaam yeeg gërem ñëpp a koy def bu fekke yow comme ni mbam def ngay def rek ay ca ko jur mi mbam rek dom jo xani mbedd mu dem bu ko dee fa moom la war ca kaw diko dak kay ali nga nan koy ya ñak jom sa morom yi da war di dóor di tax ñukoy war parce que non nga don def ay ci dend yëfi nit maa ko wax adduna lañ koy préparer waye amna ko dom jo xani xel mi neex gaaw jang gaaw mokal hein ah, présentable bu waxe nit ñi diglu ko dañ koy wajal sëñ Tuubaa waxu ko barkeelam rek bi ñu ñaan sët yu barkeel yi ah suriyatan tujaddidu nahja nabiyil Mustafa tajtahidu yàlla lool lay ñaan sët yu yu yu yu éloquent yoo xam ne diine yonent bi dañ koy jël ame xam nga ni xam nga ni mi yi dañ leen a waajal de juddu raw ñëpp gën ñëpp ah dañ koo waaj. yàlla xam na ko mos naa ci dégg koo xam ne dafa ma yéem yàlla na ko yàlla dolli wér biñ ko yóbbu daara du aay sëñ Moustapha Saliou mi def naa jële ko kër sëñ Soye bu mu jëm njaarim kër sëñ Mor mu diglu def naa barsal bu sëñ Moussa Ka wala am naa lu mu déglu ci oto bi sa sakko oto bi ko yóbbu daara laa wax mu ngi ci oto bi laataa oto bi egg njaarim jasaaw sakkoor bi jeex na mu mokkal ko ci biir oto bi te daleegul baax moom xel fu ko nit jële déggoo ma de dong bu nu yóbbu dara waaye teg ab kaset ci oto bi kaset bi jàng mu di ko toppandoo bi waa ji jeexale mu tàmbali ko tari waaw mhm. Mhm. Mhm. mu ne ko mën nga laa tari sa waay tàmm mu ko benn waay bu ñëw noonu ko wax benn xam-xam daa jox ba yàgg mu ne ko noppil noppil ndax dama ko mokkale nangam te boo ko waxee ne ma daal koy mokkal ñaari version yi laay bañ am ay nit lan de ay nit dañ leen a préparé ay nit lanu waaw waaw kay dégg nga ko Cheikh Anta Diop mi waaw xam nga loolu kéemaan la rikk waay xaw ma ñi paase de waaye yi ñëw nii góor góor leen ci doom yi waaye hmm? waaw am na yoo xam ne yàggut nga génn ca mais balaa nga ci dugg préparé ko ngir ki ciy sosoo yàlla xam na ko loolu loolu mooy mooy li nekk kon loolu lépp sangaayu set rekk ko fi andi na góor ñi jigéen ñëpp jàng ko te bu leen ko sàggane nii seen xaalim dafa yomb na kaset baa ngi fi bu noppee audio yi dina ñëw ci yéen na ko ñëpp dégluwaat raxasu xobbiku yéene njàppum benn benn ngir boo bëggee julli boo bëggut a julli nag jaru ko njàpp mën na cee ñàkk te jox ngay li wax soo njàpp ma jeexee ba noppi la lay wax ni xaajal sa jëmm ji ba ca wóom ba ndeyjoor ba jëlal góos bi mooy mooy wetu càmmoñ ba ca ndeyjoor ba eggaleen yeelub ndeyjoor te eggale yeelub càmmoñ tarag ginnaaw tarag sa biir tarag sa dënn amoon naa wala fa neex naa ko seet fii boo xam ne sëñ Mbàkke ñoom moom moo ko jàngaloon moom loolu la waxoon noonu ci sangu jàppit nii ma la wax noonu la demee soo ko mënul jëlul julli ndax boo dee ba am ngànt lañ demal nga tiim doo ko mën a julli waaye bi nu waxee ñoom ñaar bi nu welantee ci tiim ak jàpp lu gën a foor ku ko ci xam ci yéen. moo gën a. lu tax. ah wax nga dëgg de eh, xanaa Baye Talla ko jàngal. non Pape loolu moom moom demee ko noonu. wax nga dëgg d' accord naa yow. d' accord naa d' accord naa d' accord naa. dama maanaam maanaam maanaam tontine bi. tontin tontin wee tax may wax. ah waxoon nañ ko fi daaw. waa kay kon lool waaw d'accord na ma yow dama lay wax rek xam nga xam nga du benn mais dafa dafa am tontin boo xam boo ko tontoo maanaam tontin wi moom la bari mën a jàppee noonu. passé naa ko ah. waaw kay xam nga xam nga boo déggee wolof waa waaw firiñ boobu nga ko firi moo baax waaw bu fi tiitaru nag yow <laughs> kay nga waaw ma ne prix ma neex rek waaw kay waaw d'accord na bàyyi woon nii ñu bari mën na koo xàmmee diggante tiim ak jàpp foofu laa bëggoon naa wax maanaam prix mi moo baax ndox mo xamni lam yata khair lawnuhu wa tahmuhu wa rahiyatuhu mom la wax non léegi ndox mo xamni couleur bi bim juddou judduwaale mom changé wuko moy lawnuhu couleur bim juddou judduwaale amul ko sansé su amul lu ko sansé manam ndox mi nga jël ci teen bi foot kat bu doon foot taraxul pan ba nga soti ko ci manam couleur ndox mi sansé ndax saabu bi du dem jël ndox ci biro bo xam dafa am dawlin nga xam boko soti da ngay gis diw gi ni muy yeeyee ci kaw dutu mën tay japp walaay bu doon ndox mi ne danga ni kat sama sëriñ laa ko def ndax daa ko fonk xam nga amet ñi me ne ko damay pomp ndox mi laj ko laj ndax fonk sëñ bi de bu defuñu ko fii nit ñi sedd guy mu daal ventilateur <laughs> yàlla démb dañuy jàng ful ko ba toll ba ci wax ñun ñëpp liw amet jëli ventilateur ba ngan tegal na ko sun <laughs> bàyyi woon tuuti bàyyi taal du eggale ndax bo moom mi ngi sakata ki def yëf nga dem tegal ko non tegal ko ci wet xam bo boo bi rek waaw ndeysaan amna ko ni ko mo sa def ndeysaan ci ben ben ben terrasse ci kaw naa nak bay seigne mor ñëw dal bi seigne mor la mu dem mu dem andi ci ray bant yi mo ñu taal ci kaw terrasse ba ray bant terrasse bo xamante amuti miir bu ñu bëggee lu neex bi teg ko ne ngelaw di ko ëff jaar fu lañ bàyyi suñu ma waa kii ma ma ne ko daa xeer rekkan bàyyi ko noonu <laughs> ni tamel noonu mooy li nga def barki dem yàlla na ko yàlla fay ca na sa ventilateur boobu nga jëli mbaax gu rëy la ndox moo xam ne couleur bi soppikuwut parfum soppiwu ko saabu soppiwu ko dawlin soppiwu ko ndox moo ma mën a jàpp lu ko ku loolu xasee soppi rek baaxatul ndox moo xam ni cafka bi xañ na yow yaa doon raxasu xam nga même ba ci cangaay li ñuy wax nii cangaay bëgguñu yow mi tax sobe di sangu set ngay ngay sangu sangaay bi ndox mi di tis ci ndox mi ngay sangoo xam nga da tilim ndox mi set mais bi ngay sangu da ngaa tiim siwo bi baa ngi tiim paan bi te ubbuwut boo aseen sangu maanaam sangit ji di sotti ko ci ndox mi danga yàq ndox mi parce que ndox mi dafa laab daa war a laabal yow laaboo ndox mi war a laabal li la tax nga sotti ko ci ndox mi nee na koy laabloo du sotti même bu neen ndox mu couleur gi suppi ko te da koy judduwaale maanaam lu mel ne ak siyaan seen na xamuñu bari xam nañu ko am déet kon mooy ma jàpp teen rek mooy li ñuy roosee ci àll bi nga xam yenn saa yi ngay duy kii mu nax mën naa dal teen bii muy teen bu bees am kew nga xam nañ koo gas tey tey tey fekk suba affaire bi sottee gut te moo fi nekk lu ñu war a jàppe loolu judduwaale mën nga koo jàppe waaye su doon na ngaa fa paan bu set wi ci yóbbu ko fee benn waaye jëli fële ci kew ja ñooy sotti ci xam nga kew moo ko ci defal boppam du dox ndox mu neex xam nga xorom laab na waaw nga naa bëgg ndox mi neex may jàpp nga dem libre xorom sotti ci waaw moom saara ko ñeme day xorom ndox mi da cee jàpp ndax daa bëgg affaire bi gën a dox caf nga ko na xorom laab na ndox mi laaboon na mais bi nga leen boolee ñoom ñaar seen ñaari laab yooyu lañ la tere dégg nga kon li ngeen di tuddee naturellement ni ndox mi juddoo loolu lañuy ñuy sangoo ni ndox mi juddoo loolu lañuy ñuy jàppe am na ndox yu laab yu mënta sangu mënta jàpp waaw dañ la naan loo meew nga daa koy jàppe <laughs> loolu nag loo ko mën a tudd nag sëñ bi liitarub meew nit ñi soxla ko nga nañ ko jàppe da ngaa yabaate <laughs> du baax parfois dafa laab jàppaloowul la ci dawlin laab na jàppaloowul la ci kon yooyu yëpp yu laab la tamantalaabal ndox mu laab ci lekk ci naan te ndox mu nu fóotee laab na dangay ngay génne ko fóot def ci leen fóotaat ko def ci leen fóotaat yére yëpp ay set waaye bu noo caa jàpp sàb <coughs> baa tax def naa daal yii ma la tuddal nii mooy mu laab te mënta laabal moo xam ne laabul mënta laabal am na waaw moo xam ne laabut moom mënta laabal moom fii ne boo amoon ab foos fu mu ne nga dem gas ci wetu foos ba même pas un mètre xam nga kii day duggante moom ndox doo ci mën a doo ci mën a laab parce que ndox mi laabut mënta laabal xeet yi ni mel na hmm? noonu la mel ci yére boo sol wax naa benn fekk ci sobe danga koy summi ji baa nga raxas ko ndox ko mën a jullee su fekkee xam nga fi sobe si laal jërul fóot demal nga raxas ko rek te dem julli dala dal taxawoo fu la lal yere bi ngay fot du meuna julli ma doon jaar ci mbedd mi ben femme bu mal silwisi taxaw ci balkoom di këpp potu sambulam fekk nga wax bay dug ci bir jumaa ci mun la ko këlëb nga ne ges ma ne ma de papa <laughs> daw dug ci keur keur ki nga moom ah, yow yow Mohamed bu dug ci jumaa ji de bi ci gëna a nak moy mooy dala ko def daw xam mo am saw la la xam xamoo ndox la la xëpp xamoo lum la xëpp mom da nga fi sikki sakka bu la wuro ni ndox la amul problème waye da nga xamul lan la la xëpp ndax dala ko xëpp borop daw do dug ñu non yi da jar xam ci sa sharia taxaw ci biir julli ba ci biir nga naan wa man japp naam jàpp mu waay <laughs> hmm? am nga ñaar rakkat fati jall ako sar faatee sar ba ngani tem mu taxaw taretu gaa sabbal subhanallah sub ngani ni rek yow néewu ken dara bi booba yaa ngi calcul wa man ndax man may julli ndax na man daa ni jàpp de mané ci nelu ko ñu kabar rëccikul ndank bu léegale julli ci da nga sik sak da ngay jappi même buñ la kabar li xamalé ba nga doon ilimal wara taxaw nga ni oh, awma bul jiitee de jàppal ko sëcc ci yow te génn noonu nga war a def bu la ci njëkk fekk mukk wala rëy mel ni man yàlla nañ ci yàlla musal hmm? ba dee place Baye Cheikh daan mbooloo mii doo fi rëcc nag moom ci loolu moo tax dafa am yoo xam ni suñ borom maanaam ci niteel la la sante lim la sant moo tax niteel bu fi rëy rëylu doo malaaka doo jinne te lii man a wax day dal yonent yi faiblesse day ñëw ci nit par heure wala par loo xam par circonstance du ko tey loolu fi ne kenn képp a mën a julleek sobe te julleem du yàqu mooy koo xam ni sobe bi ko dal feebar la donte mooy ilimaan ci que amul kenn koo ko mën a wut ba tax moom lañ jiital day continuer élimaan boo xam ne fu mu toog ndox day génn ci moom dafa feebar day jàppale ak sobe soosu di génn ci moom da koy julliwaale boo nee ci téere la koy wax koo xam dañ koo yàq fu mu tollu ngelaw lay génn ci moom nga xam ni su génnee ci toilette bi ba defar ba noppi ba ñoo toog ci jàppukaay bi tànk bu jóg mu tudd tur yàlla xam nga boobu tàgg raw waa kay parce que tey ko moom moom lu si kar sa bari bari nay jàpp rek ñi ci bit nañ ma baal bu nu xàmmewul si kar soosu waa kay xam nga loolu waxoon nañu ko ci maag sëñ xarit benn kii boo xam ne ni mu bëree ay wii dafay dafay dal nit su boobaa da ngay jàpp ak moom ndax yow boo ne boo ne ma yëkkat tànk mi jot sotti ndox daal di sant nga teg ko yëkkat tànkub càmmoñ ba sant boo jógee taxaw bëgg a jëm julli ji <laughs> sant waaw parce que parce que noonu la la yàlla fi da nga feebar <laughs> moo met <laughs> yàlla ko yàlla may wér moom wàññi ba cant gi wàññi ko waaye noonu lay jullee di sëgg muy ñëw di siggi muy ñëw ba keram naa salaamaaleykum boo boo julli gi baax na dafa feebar waaye boo ko toppandoo nag yow mi seen nekkut de nga a ginnaaw moom sant na julli ba day sant boo ko dee yow sëg julli du baax yow loolu moo la doon firaw naag gaayam yi rek keroog ba ko Moussa defee torox tànga ju rëy ja liir bu ndaw la teg ci ci ci poojam liir bi xëcc kim bi rek firaw na daal di tudd loole bu baax a baax ci ko waaw fekk boobu da ko doon test bëgg ko rey ñun ko bu ko rey bi soxla ci maslaa ak moom ba d'accord ci nañ ko bañare mu ne ko waté ko bok xol ko <laughs> liir bu ñakité gën wa joy <laughs> mo sa yalla ko yalla doli yermal do fi raw naa ci conseil des ministres xam nga waxoon naa amoon na juróom ñeenti téeméeri ministre mo sa xëc ci bi rek fi raw na daal di tuddu auto ci suuf <laughs> waye comme da koo bett mu def ko bu baax te mooy président de la mu xool gaa yi gaa yëpp ni patt sëgg mun leen def leen ni ma def <laughs> doole doole doxul ndànk acca na gaaw gaa yi tàmbali keroog seen conseil des bari na ay ay yuux waaw ñëpp di di def loolu rek ah firaw naa saay saay <laughs> ah day ba ñu génn naan président li mu def tey mu acca na na ko ñëpp def <laughs> ndeysaan yont yàlla Muusaa foofu la jëkk a daane Firawna hmm? kon mi ngi noonu def naa tudd naa ndox yi tudd naa ngànt yi waaw yooyu mooy yi nga xam ne yàq julli waaw même bu doon sax koo xam ni ci njàngale mi ngelaw yooyu di génn ci nit nga xam ni bu dee da ngaa feebar mën la ko mën la tey julli des fois yàlla suturaal la ba buy génn du tudd aw tur da koy def ndànk xam nga yow yaa ko yëg jullil waaye am na ko wax dañ koy natt ba buy génn day nodd ni nga nodde nii waaw léegi nag ñoom ñaar ñoom bu fekkee seen kilifa nag daa a ñëw xam gi moo gën a garaaw ñoom ñaar ñooñu am nañ kilifa maanaam sa biir day daw nga sëgg doon su jur rek seen kilifa ñëw pap da ngay contre da ànd kilifa ki julli ki leen yónni woon ñoom ñaar bu fekkee moo ñëwal boppam da ngay da ci julli boo noppee nga dem defaru ci dagg julli gi waxuma julliwaat déggoo ma de li may wax dafa mu mag goo xam ne tey ab procureur la day kuusu nga xam ne yàlla rek a man di leen di rek billaahi ñépp a koy muslu waaye yàlla nattoon na ko maanaam maanaam géej ak suuf googu amu ko élastique bu ko téye ci suuf amul fi mu toog ci sees bi nii nuy kuuse xale day day kuuse boppam xam nga yàlla mooy def lu ko neex dafay am léegi nag kooku ab jullit nga du tax nga bàyyi julli gi bu dee da ngay def ngelaw bu dee da def bu mag bu ci doon da nga julliwaale ak moom mooy tax nag kooku nag est-ce que mat na ilimaan déedéet ci kaw bu fekkee ne nekkee dëkk bu kenn jàngul nag mel moom képp moo ko jàng xam fa lam fa xam loolu nag defe naa amut lu amul bariwut mooy tax mu mën a jiite nit ñi ndax bëggut maanaam muy joxe ay xéewal ñi ci ginnaaw di di reetaan di yàq seen julli loolu la ñu bañ san mënoon ànd ak yar ko teggin xam ne feebar na la mën na leen a jiite waaye yaakaaruma ni ñëpp mën nañ ko noonu kon yooyu mooy li fi nekk mu ngi noonu daal. sëriñ bi foofu géex mu gën a garaaw. Mhm. waaye géex moom dafa am fulla ba dox fu yaatu. Mhm. waaw ñàkk fayda ba dox fu mat. Mhm. waaw. waaw. waaw moom de mi ngi noonu rek yàlla na ko yàlla yërëm daal tamit bu ko defee rek waaw dégg ay sax ñëwatuñ ci léegi ndax seen question yu waaw hmm. Hmm. wa isa xudiyati salaati fantasiru fil ard su ñëwee salaamaaleykum julli ci allahu akbar la tàmbulee salaamaaleykum la